سن لخي شكوى وعلى النبي وعليهم اجمعين سلام ربنا جاي شيخ الحاج عبد العزيز ويدي طالب من المغرب جاك بكم من الفريق وينك يلا يلا فيل سمام شيخ الحاج مالك لم نيون يومي بقى خم يونان jërul ngay sori ñëwal fii lépp loo laaj moom Maodo ci Seydina Muhammad mu wax la ko yaa xaa'isal bahari lil asdaafi jërul yàq sa xaalis di génn di dem fenn indiya asdaafun biha durratun ala min al jalam bayit bi ah aj malik yàlla nga gudd fan ak toppandoo xam nga nag léegi sëriñ si dañoo mën a toppandoo ndax ah, ñoom. léegi mu toppandoo li may faral di wax ni seen maam Maodo ah sëñ bi kam waxabta mi aatin dama wax mi aati ne suñu jox ma mi at kam wahabta ulufan ulufan kam wahabta karatin yabna usmana kam silta kam ista kam basarta wala kam summa kam wa kam kam asarta khairana seen mama laaji maa ألوفا كوابتا فراجل يبنى مسمع آمين فكم كم عابد زاهد كم

تقول ساني تمشي بدفلني كم زلت كم عشت كم باشرت كم ولا كم كم كم وكم ثم كم عزعت أحياء مالك كم وابت والغوان قرزاني يا ابن عثمان فكم وعبت مياتل فكم بارينا وهبت بوم يم الحاج مالك مياتل اي dukkan waabata ulufan seri haaji neena bari na alaaji malik ummaya ay junni moom mawɗo kam wabda karatin yabuna usmana muni barina barina bu mawɗo bolle ɗi dolli ɗi dolli ɗila may ay yoni yon ko def loolu muni yabna usmana mami sedi mousafa si kam abidin barina jaamu ko to yallah zaidil

kam ɓurɗil ilaha mi ko yew mawɗe ɓarino bo contanɗo yalla ndax yalla bimiti yew alaji on kam ashabta cheitana mi ko yew mawɗo ɓarino bo torohale seytane moto rutton nufusa li dini tarbiyatan iblisu mabɓe ɓaɗinohulmaka dini laye tarbiyatan iblisu mabtaba matminul mahtani sunna الوالد البر يا استاذ منصور نبت نعم النفوس لدين الله تربيه إبليس مبتزا مطمن المعكائد فاصبر على الإبن إبن أنت يعالج البر يا أستاذ حسن دين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 سرين بني ناني واختاني تي شيخ الحاج مالك رضي الله عنه سرين غن مبايك غني طالب مولانا مام شيخ الحاج مالك بوتي لنن باب عبدو مبامو جف كنن نياك نلم دون ود ادونك الاخره طالب شيخ الحاج مالك تلوما واخ دناكو انديل دليل طالب شيخ الحاج مالك لاني بو جيسو كنن مبامو ووتي لنن دان نكو خاج لم دون ووتي تبو نيوي نياك ماودو sa maam ja si Malick Serigne Babacar Sy ne innal murida iza iktafa bi muradihi yahwil makarima kullaha bi jihaadi Serigne Babacar Sy ne innal murida naka taalibe Cheikhul Hadji Malick yaa way léegi Serigne Ngagne moo way léegi ni Cheikhul Hadji Malick wax mul muri maridi wa huwa saadu muridihi te wa huwa Cheikhul Hadji Malick kaana muradan شيخ الحاجي مالك سيغ ماغات مراد لا دي سعد المريدي دي وخم المريدي شيخ الحاجي مالك ماني باب عبد مراد لا يالا كو نام يالا كو بغ سوخلا كو بريباري كو غير جامي مو نيك مو جديد مو ام اي طالب طالب يي نك شيخ الحاجي مالك موي سن تخه موي سعد المريدي وي شيخ الحاج مالك موي بوسنو ابليس موي مباسو ابليس مي ادي فترلو موي وخمول مريدي كيف كيف تقول شيخ الحديث مالك ما يسبحن ما مسرد باب كرسي سي مالك سي محمد الحافظ سي mu ngi lay nuyu bu baax si di la dalal tabarakallah ma ni Cheikhul Hadji Malick maam Serigne Babacar Sy ni innal murida naka taalibe Cheikhul Hadji Malick ijaktafa bu doyloo ndem doylu na bi muraadihi li ma wax léegi mi ngoog de sëñ ngeen yaa ngi may dégg ne woon naa la Cheikhul Hadji Malick muraad la waaw te lu ma wax dinaa ko indil dalil waaw sëriñ Babacar Si ni innal murida waaw naka taalibe Cheikhul Hadji Malick isaktafa bu doyloo bi muraadihi ci Cheikhul Hadji Malick man la Cheikhul Hadji Malick muraad la yàlla ko bëgg indi ko isaktafa bu doyloo moom taalibe Maodo bi muraadihi ci Cheikhul Hadji Malick yaxwil makarima luy tedd ngay àdduna ak àllaaxira danga ko am man sëñ gañ incha allahu taala ku la ñeewul doo ko ñee taalibi Cheikhul Hadji Malick ku la ñeewul doo ko ñee ah ma joxe jàkkaarloog nii aha kon war nañoo xoolaat ñun suñu bopp ñun ndaw ñi ba xam ñun ndaw ñi bokk nañ ci ñu ñuy ñee wala ñun dañuy ñeewaate wala déet buñ yëgee ci suñu xol ñun ndaw ñun ñi bokk ci kër Maulana Cheikhul Hadji Malick am na ku ñuy ñee ku bokkul ci kër gi ndax ñun suñ taalibe dëgg na wala déet isectafa bi muraadihi laa wax de taalibe Maodo bu doyloo Maodo yaxwil makaarima luy tedd nga mook ci loxoom la nekk ah jërëjëf man yow laa ñee kon kan mooy Cheikhul Haaji Malick radiyallahu anhu mam Cheikhul Haaji Malick ñan ñoo xam Cheikhul Hadji Malick moo ñu jamono wanteeg moom ñoo xam Cheikhul Hadji Malick ñu ko jiitu woon ñan ñoo xam Cheikhul Hadji Malick ñu topp ci ginnaawam xam nga Cheikh Serigne Cheikh nee na nit nan lay yéemee mbaa ngay waane ci beneen kàddu bokk nit nan lay jéemee waane fekk koo xamante ni man luqi ba bi ma jihoolil umma wa anta min hadihi al umma aw min tilka umma kon naka la koo xam ni dañ koo dàkkantalee ni umma bi hmm. peuple bi ñepp ko réeree hmm. képp kuy taxaw di wax ci mawda ya ngi bok ci umma bi nak ngay waxe ci mawda loolu la serigne Cheikh bind tuddee ko umma hmm. Cheikhul haji malik kuy nit dang ko koo kon nan la nit di taxawé di waxtaan ci Cheikhul haji malik Cheikhul haji malik mam Serigne babakar Sy anhu ne bo bëggee xam Cheikhul Haji Malik. duñ ko xam waaye dañ koy mus xam nga luy mus gi ñii ngeen am ñii ñu am di suñu sëriñ si ñu jàpp leen jàpp gu sell am pas-pas mbokk yi yëg ngeen ni lu mu mën a doon riir mi bari na waaye bu pas-pas amul yàgg yàgg ñàkk lay doon coona ñàkk am coona yaram ñàkk xaalis bu dem waaye pas-pas bi bu wérul billaahi duñ jariñu buum gi lu ma gudd gudd wala weñ gi lu ma gudd gudd ci yére bi ñaaw gi ba amul fuñ ko teewee boo xëccee mu dem kon ñii pas-pas moo leen ciy jàll mooy jàllale moo leen moo ñuy jàllale ci ñoom waaye du kërti-kërti ju bëri taadimukal waliya bil fuaadi ajja taharrukin ma al fasaadi ma toog fii sëriñ si toog fii ma toog fii màggal leen te juguma nuyu leen magal len ci sama xol sen mam Cheikhul Hadji malik neena mo upp doole fouf nga ñëw dox len loxo ba joggi len gaañ len jële ci yàqute kon Cheikhul Hadji malik laa ni nuñ koy bëgge xam nga lutax ma tambalé fi sen mam Cheikhul Hadji malik mo ni acheyqu min tawqiirihi tawqiiru kulli lazi min hawlihi yaduur sëriñ bokk na ci niñ koy wegee da ngay wegaale ba muus mi nekk ci këram da nga koy wegaale kon seen njaboot gii taxul ñuy wax Cheikhul Hadji Malick nag moom cheikhun la cheikhun la de xam nga bëri na ñuy woote naan ay sëriñ lañ fekk ay këriñ lañ këriñ moo bëri ci jamono këriñ moo bëri ci jamono koo xam ne dangay ngay wooñ njaboot gi bañu ñëw nga jariñoo leen sëñ màggat nga jariñoo leen te jariñoo leen loolu mooy këriñ yassiru wala tuassiru yassiru jàppandal leen taalibe yi won leen yàlla kon mu yomb wala tu assiru bu leen leen nëbbu yàlla di leen di leen won seen bopp kon day jafe ab sëriñ liñ koy dee mooy saa yoone ne ko jàkk sa xel dem ci yàlla boo fàttee yàlla mu fàttali la ko boo ko gisee sa xel dem ci yàlla bu sa mbalaan muree ko mu mën laa sàngaat fa nga nekk lii lañuy ñuy doy ab sëriñ Cheikhul Hadji Malick nag cheikhun la saw jërëjëf sëñ Maguette bul ma delloo yow cheikhul téer rek cheikhul te ma ko téye foofu bopp cheikhul Hadji Malick cheikhul la laa wax cheikhu boo xam ni yemul ci sëriñ bi ah sëriñ bi yow de xanaa ma gëmu leen na ñëpp gëmmu jërëjëf si maanaam ma laal Maodo Maodo moo laal Maodo ah الإمامة بالإله يا من مدمع الأبصار يا مدمع الأبصار يا علم الهدى يا ترجمان العلم والقرآن xam ngeen ma firi ko ci lu gàtt sëriñ bi gis nga bi mu génnee fii est-ce que ñu bër yi bër yi tourné wuñ jàkkaarloog moom bi sëriñ bii ñëwee sëriñ Cheikh Mouhamed mii jàkkaarloo wuñ ak moom sëriñ Moustapha mii ba mu génnee waññeeku jàkkaarloo wuñ ak moom Cheikhul Hadji Malick nag mooy seen maam mooy matma al absaar yi bër yëpp matma al absaar yi mani bët yëpp laa wax bu ñuy gis keneen te gisuñu Maodo gisaguñ lañ bëgg a gis bët yëpp ma Cheikhul Hadji Malick moo leen tere nelaw Hadji Malick yaa matma al boo bëggee xam xemmem teefu bët yi laa wax bët yi seen xemmem teef ki ñu bëgg a gis ma Cheikhul Hadji Malick mooy matma al absar yi boo bëggee xam njub gaa yi mën nañoo jub jub gi mën naa bëri waaye jub di jub ba jub gi nekk loo xam ni foo toll di ko seen mooy Cheikhul Hadji Malick mooy alamal huda mooy mandargam njub soorooru njub boo ko bëggee xam xam nga Pape du jub bëri na gaa yi mën nañoo jub jub ji di bëri waaye ragal yàlla uh-huh. gu fees dell uh-huh. ba jug ca kaw fu ay tollu di seen Maodo eh. njub uh-huh. gu fees dell di alamal huda nekk soorooru njub Maodo banaa bayta izzin bi tuqaa mutatawilan fa yaqsuru xaqan doonahu mutatawila jërëjëf si Malick يا ترجمان العلم والقرآن mbay yëg ngeen ni kenn ku nekk fa nga toog mën nga faa toog naan sama a ragal yàlla sama maama jub waaye bul dugg ci waawoon mukk waaye bul juum bul juum ba joxañ Maodo naan Maodo sama maam dafa jub ak Maodo dafa ñu jub déedéet bayta azim néegu ragal yàlla la Cheikhul Hadji Malick tabax lan la ko fondation ban sima moy sima bi ndax sima bi la wala fer yi la mune dedet bituqa ragal yàlla la cheikhul haji malik tabakhé bâtiment ba mu jug ba sut ñep fa yaqsuru billahi dana gàtt mus haqqan ci deug deug donahu nek bu negu cheikhul haji malik kan waxa koy gàttale mutataawilu kuy jema gudante guddanteeg cheikhul haji malik moy alamal huda moy mooy gam njub mom cheikhul haji malik waye moy tarjuman al ilmi gis nga xam-xam sëriñ buñ fi biralul wax na nga lay yàllu naan ah moom de def na fi nangam waaye Cheikhul Hadji Malick kese képp dong laa wax cheikhun sëriñ la boo xam ni taqiyun bu ragal yàlla la laa yu zannu déeful tuumaal Cheikhul Hadji Malick mbir yi batin ci benn si mu aani Maodo aji dimbali la taalibe yi ala istiqaamatin teg leen ci njub bil ilaahi ba ñu àgg yàlla عين الشريعة xam nga wa sadru shariati humma alhaqiqati fulku najati allazi man hatam wa nadiratu alwaqti ma in yura mathilun yuqaribuhu bal walam aynu shariat boo bëggee xam jëmmi sharia xamal ni mooy Cheikhul Hadji Malick wal haqiqati inna haqiqa bu doon jëmm la Cheikhul Hadji Malick mooy jëmmi haqiqa innahu naka moom Maodo yahdi almurida yahdi almurida day gindi taalibe yi لقارس الأديان جرجف أبي جميل تجينا تجينا سيلا سامي المقامي بابك يا خمسة يقول حاجي مالك سامي المقامي كذا كتكون درجة وعمدة العلماء برم كم كم يب بني درجة كان ما يسند فتا بني وير ما يقول حاجي مالك تاج العلماء باي اللول ما خنا نيم فيت يك أو لا يقول حاجي مالك فيت يك أو تاج العلماء من جبل كبير إيه. خنا خموني ويري أكبدوي ويري أكجنتي بني نيو كبير لدول نيوم لما ودا كبير كدول مام هو ظل فضل هو مام شيخ الحاجي مالك ظل فضل الميكرو غنيل وافرين مضلل وافرين كرغول لولا واي غيس نغا لي سي دانسي موي سين مام كير دو دوخ دي فك كين يوبي بغا كير ياي دوخ فك سيكو وافرين كير دا فا سك سد واي لي مضلل تي بغا كير ياي نيو دوغ مو لا لم يخشى لم يخشى دو راغال موكو يا أقذون به شدوا ظهوركم من نال ما نلتم يا إخوتي عودوا الحمد لله إذ ما كنت في زمر إلى المحبة في إكرامه نودوا يا أقذون به لم يخش سالكه يا أقذون به الشيخ سيد الحاج مالك وخم المريض لم يخش درجل سالكه كسوبو تكرو موضو درجل من الحيران تبين نجلم لتخدم درجل مام شيخ مام الحاج محمد المنصورني يا أقذون به إيه yéen ñi dagg seen paas yàq seen temps ñëw ci kër Maodo suddu zuhurakum tekki leen kol yi takk ko seen ndigg yi ci ginnaaw Maodo ñu ni ko lu tax fii mu ne man naa la maniltu mooy yaa ixwati awdo baye boo ngeen xam ni ku jàpp ci Maodo jàpp nga ci koo xam ni kenn jàppul ku mel ni ki nga jàpp kenn amul lu mel ni li nga am yaa aqiduna bihi yéen ñu jàpp ci Maodo suddu zuhurakum takk leen seen ginnaaw ci ginnaaw Maodo man naa la ko am yaa ixwati yéen sama mbokk maniltu mooy li ngeen am awdo ñu noonu leen li ngeen am kenn amu ko ku ko am ñu noonu la moo tax da ngay rek suñ kër kër Maodo wala kër Maodo raw ñu waaye maa raw Maodo billaahi bala ko ñu da wax laa yu zannu biri batin man jàpp naa ne jàpp naa ne ci sikk yi la bokk sax sikk laa yu zannu biri batin nit taxaw ni maa raw jàpp naa loolu sikk Maodo la loolu du am de bu amoon loolu mu doon sikk kenn du tuumaan Maodo xam ngeen kuy Maodo mooy wurus man mi taalibe Maodo gaa yi taalibe Maodo yi ñoo raw gaa yi xam ngeen kuy Maodo mooy wurus wurus jigéen ñi ma laaj leen la mu wurus ak la mu përëm lu leen daqal ah la mu wurus mooy Cheikhul Hadji Malick ngeen baal ma ne gaa yi ci des përëm yi përëm yi ñoo ñu ci des përëm sikkeelu ma leen de maam Hadi ne ñëpp ay sëriñ lañ xali siyooku xali siyooku mooy maam Hadi li wax xali siyooku maam Abdou mooy sëriñ am na benn wa in jallet maratibuhum mooy sëriñ yi am nañ ay martaba de bu kenn xeeb kenn dëgg la de dama ni nekk njabootu Maodo mbaa nekk njabootu Maolana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi bu la taxee xeeb kenn doo jariñu ci Cheikh doo jariñu ci Maodo maam Cheikhul Xaaji Malick ne wa laysa manukumu zawran bi man manikumu taadima xurmati man naalul wilayaati tere gi ñu leen tere ni bu yëgati sa tànk dem ziyaare beneen nit yàlla bu dul tijaan terewuñ la nga toog si nga toog màggal ko am daraja màggal gi nag laa wax màggal leen di dëgg la waaye màggal gi dañ wanee su suñu màgg ñun sëñ Babacar si ne boo bëggee xam Cheikhul Xaaji Malick ak ñu dul ñoom ak ñu dul moom dafa mel ni jigéen gi yor wurus ak jigéen gi yor përëm ndax bokk nañ waaye mën nañ leen a jaawale nag bu ma toogoon fee xool nogay mu takk ci loxo bii lamu wurus takk ci loxo bii lamu përëm te jegewu ma ko du ma leen xam ne du ma leen xam ne ndax du ma leen seen moo tax Cheikhul Hadji Malick fekk defoo effort bokk ci njabootam doo xam ni nga am mam Serigne Babacar Sy ni inna nuhaasha la mushbihun bi nu inna nuhaasa لمشبه بنضارنا لكن فضيلة درنا بسواره sëñ Babacar si ne yéen ñi jàpp ci Cheikhul Hadji Malick xam am ndax përëm kat niroo nag wurus de ba boo leen séenee doo leen xàmmee riirandoo mi bëri na waaye bu kenn nangu ñu fëkk la seen maam alhaji Mahamadul Mansour ne laa yaxtifannakumul xataafu fajtahidu dunyaakum wa haatihi daaru gis nga koy طب دور الدارين فريد العزب من كتب مدو زماني زماني يا ما زماني يا ما زماني ممون زماني يا ما زماني يا ما زماني فنيف أبشر يا مريد بنين شيخ فريد العزب من تحفي زماني زماني يا يا ما يا ما ألفني وقلبي في العلاقة قد كفاني أنا والله حقا في كفاني سباني ما سباني ما سباني سباني ما سباني ما سباني ma ne gars yi ku toll ni maam Serigne Babacar xam ngeen ni xam ngeen laa wax ku toll ni maam Serigne Babacar bu toogee ni man de babakar aw ma ko sama xol di aju koo xam ne yëg naa ni bu xol bi ajoo ci moom mu doy ma ku dul Cheikhul Hadji Malick wa qalbiya sama xol man sëñ Babacar xad kafaa fil alaqati ci tofeel xad kafaa doy nga ma yow bàyyi ana man sëñ Babacar xool li ana wallahi xaqan fii kafaa nii ana man sëñ Babacar faa nii jeex laa tàkk fii ka ci yow wallahi maa ngi koy gin ci yàlla xaqan ci dëgg-dëgg kon war nañu xam dañu am de serigne Babacar sini ma dajal ben cadeau gi jox serigne bi maam serigne Babacar sini peureum ak wurus dañu niro buñ soree duñ leen xamé kon buñ bëggé xam liñu am fokk ñu xam kuy mawdo bo takkee wurus tak peureum do leen xamé ci sori way waye bo ñëwé ba jigen gi leen tak mbaa mu jëfëndiko ko mbaa nga jege leen da nga xamni mawdo du moroomu gaay yi Maodo mooy pour mooy wurus wurus wi gaay ñoy peureum yi. ñu ni ko lu tax nuñ koy xamee mu ni zuq ma yuzaqu bihi li tuhmada malikan wa yuzala anka les lasta tumaari Seexul Xaaji Maalik kenn du ko jàng ci ay téere da ngay ñëw jaxasoog njabootam gi ñam li ñuy ñam ci Maodo bu ko defee loo doon sikki di ko weddi sëñ Babacar nee na keroog nga koy bàyyi dootoo werante de ah nee na ko weddi laajal mag ña dëgg la de tabaarakallaahu kaddu waxtu wee xaw a xat sëriñ màggat waroon na waxtaan waye jël lépp tabarakallah jox ñu ngir baaxam ak yaatalam ñu nit liñ waroon def moy jëlat ko delo ko ko waye tabarakallah dañu xam ni buñ ko doon def rek duñ fa juggé waxtu wé xat sëriñ bi kon ñu jéggelu ci kàddu yi bu baax ndokkeel la bu baax ziar la di nuyu sa mbokk mi suñu xarit neena sëriñ bi neena suñu xarit suñu sëriñ Seydi الشيخ محمد الحافظ التجاني العلوي Tidjani Al Alawi ñu nuyu ko ziar ko màggal ko tabaarakallaahu te kooku du maamam doomu Alaaji la maanaam mën a ràññee ni place bële yeneen bi fa lay toog loolu du wax bu ndaw fi may daaneele rek mooy ngeen xam ni sëñ Moussa mii taalibe yitteelu ko wutul mbooloo wutul daraja wutul dara papaam moo ko yitteel Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak responsabilité yi aju ci kawam mu xool nu mu koy yóbboo foo xam ni fa tabaarakallaahu ñun ñëpp moom lañ koy ñaanal ngeen ñaanal ko yàlla parce que neex na lool ñu ni waaw suñu doomu sëriñ lañ fa fekk nangam nangam waaye seen doomu sëriñ bu leen wóoree ni mbir yi génn ci te mënu cee génn dangeen koy ñaanal mu yàgg fi man de bokk nañu li ñu bokk muy muy xaaj male Malick waaye ku la ëmbal cofeel la ku la sopp laa te yàlla tax ndax sa mbaax sa yiw sa dal sa yaru ak sa bëgg ñëpp fa tabaarakallaahu yàlla la yàlla sàmm yàlla aar la yàlla wattu la ni ngeen ñëwee ziyaara si ci jàmm yàlla ngeen delloo noonu yàlla bu ngeen am benn benn ndog-ndog yàlla bu ngeen am benn gàllankoor yàlla yàlla sàmm ñëpp wattu ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekkoon kaddu yi ci li yoolal Serigne Moustapha ngeen dolli ko ñaan bu baax yàlla sàmm ko aar ko bi jaay Seyd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada wa billahi tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullah ala nabi wa alayhim yéen a ngi seetaan Tivaouane 24 muy télévision bi nga xam ne l'islam bi rek ak a tijaan moo ko tax a jóg mbokk yi bu leen fàtte abone bu leen fàtte bës kolos bi ak Tivaouane 24 TV l'islam et la yi lépp looy jaay bëgg mu siiw programme boo am bëgg mu siw jokkool ak waa Tivaouane 24 TV mbokk yi seen bi nga xam ne mooy leeru Tivaouane سنن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي